dialogue boobee nag Macky Sall lam ca bëgg maanaam dafa bëgg am troisième candidature te nag ñoom nee nañu loolee maanaam ba ñu ñu ci nob bu ñu sañum ngeer dialogue wu ñu tey dialogue wu ñu ëllëg loole la waa F24 wax ba pare nag di sàkku ci président Macky Sall maanaam mu génn ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum ñetteelu candidature ndax ñoom nee nañu ñetteelu candidature Macky du ñu ko bàyyi muy am ci réew mi ndax baaxul ci réew mi journal bi di réew mi quotidien njiitu réew mi di président ñi nga xam ne ay détenu politique lañu te jamono politique rek waa F24 sàkku ko ci Macky Sall mu libéré ni mu gën a ba pare nag organiser ay élection yoo xam ne élection yu leer lay doon élection yoo xam ne yu libre doon yu jaar lay doon loolee la waa F24 wax Macky Sall ni ki démb journal bi nee na yemuñu fa ndax ñoom jamono ji bëgg nañoo jàmbarloo ak Macky Sall ndax nee nañu fukki fan ak ñaar ci weeru mai wii nga xam ne moom la ñu dëgmale danañu amal rassemblement bu ak yelleefu doomu aadama ak wàllum démocratie ba pare Macky bëgg am ñetteelu candidature loole bokk na ci li tax waa F24 woote ab grand rassemblement journal bi du l'observateur xëy ñu xibaar naan ñu njiitu mi di président Macky Sall wax na waxaat wax na waxaata ci lu jëm ci wàllum dialogue bi tàllal na loxoom tàllalaat loxoom tàllalaat loxoom moom Macky Sall ne gars yi leen ñu waxtaan waaye nag ñi nga xam ne ñooy waa F24 plateforme F24 ko Macky Sall bankal sa loxo jale gi wuñu tey jale gi wuñu ëllëg yéen kaay gi di leen foo xëy duñu xibaar naan ñu waa plateforme F24 ni ki démb dajee nañu ñoom nag nee nañu dialogue bii nga xam ne président Macky Sall woote na ko maanaam ñoom concerné wu leen ndax nag ñoom jamono jii li nga xam ne moom la ñu bëgg daal ak farata ji mooy def ay mobilisation yoo xam ne maanaam ay mobilisation yu mag ay rassemblement yoo xam ne askanu Sénégal ñooy génn ngir nag ñu mën a jàmmarloo ak président Macky Sall ndax nag réew mii di Sénégal maanaam Macky Sall daf kàddu dañuy nettali yéen kaay gi de ñu xëy fekk fa bugaan mu njëkk ma daat nay wax ne président Macky Sall yàgg naa woote waaye musu fee woote benn dialogue boo xam ne bu dëggu la maanaam dialogue bu dëggu Macky Sall musu ko fee woote jamono ji nag li nga xam ne moom lay wur daala maanaam ay partenaires yoo xam ne ñoo koy valider lu jëm ci wàllum troisième candidature bi waaye nag loolee du amee ci réew mi bi nga xamante ni moom la président Macky Sall woote bugaan gi dani nee na nag baara yëgoo la baara yëgoo la ba pare nag ab dil la bëgg a dil ci ndoddul askanu Sénégal Khalifa Ababacar Sall niki démb ñëwutoon ci ndaje mi nga xam ne plateforme f n naka doonuñu ko organiser yéen kaay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar na ñu Ousmane Sonko ak Aminata Touré seen diggante léegi neex na lool journal bi nee na élection législative yi nga xamante ni moom la ñu génn ma ne la Ousmane Sonko ak Aminata Touré defante nañ bana saay ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu génn waaye nag ñaar ñii fàtte ñu mbooleem li nga xamante ni maanaam doon nañ ko defante ñoom ñaar ndax ci élection législative yi Ousmane Sonko doon na ko wax tata Mimi doo bokk Mimi Touré naan ko tonton doo bokk waaye nag ñoom ñaar jamono ji daal ma la neexoon nañu lool lool lool lool lool ndax nag Aminata Touré daal ginnaaw bi mu ñaawloo bu baax a baax nguur gi nga xam ne ñoo lëngoo ak waa PDS maanaam di ko saaga ak di ko menacé Ousmane Sonko dafa jël xalima ma daal di jàppale Aminata Touré ci lu leer daal di song nag nguuru Macky Sall moom Ousmane Sonko jàppale Aminata Touré ne maa ngi koy soutenir maanaam ci song yeeg saaga yeeg menaces yi nga xam ne ñoo ko koy def Ousmane Sonko daal di ci yokk na nguuru Macky Sall gi nga a Touré maanaam sàkku démission président Macky Sall ginnaaw nag Ousmane Sonko bi mu soutenir Aminata Touré moom Mimi Touré jëlaat na xalimaam de daa di jaajëfal Ousmane Sonko bu baax a baax mën na la si jàppandal gi nga xam ne moom la ko Ousmane Sonko ñëw di ko jàppale yéene kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko jàppale na Aminata Touré waaye nag jamono ji dafa mel ni opposition bi ci xaajaloo la ñu jëm yéene kaay gi di la point xëy duñu ñu ndaw ñi ñu sàkku candidature président Macky Sall journal bi di source a xëy dañu xibaar naan ñu Ousmane Sonko fan yi nga xam ne moom la ñu génn mën na la jaar na Gambie dem ca diwaanu Ziguinchor waaye nag photo bi nga xam ne Ousmane Sonko photo na ko ci diggante Gambie ak Sénégal am na gars yuy wax naan photo bi waaw xaw ma photo bu yàgg la waaw xaw ma photo bi montage la nangam nangam journal bi di source a nee na en tout na la photo bi mardi bi nga xam ne waroon a ñibbisiwaat fii ci ndakaaru njaay jël joppa ndax nag li nga xam ne mooy nemmeeku tur bi tey jii sa alxames ci la a dooraat journal bi nag nee na mën gis nga fëq génn frontière yi défier bi Ousmane Sonko du moo ko fi njëkk a def de ndax nag bu ñu ko Omar Sarr tere woon nañ ko mu génn réew mi contrôle judiciaire bu leen Ngom mën na la Ousmane Sonko njëkkiwu ko fi yéen a kaay gi di 24 heures xëy xibaar naan ñu bëri na ñoo xam ne daan nañuy déclaré seen candidature ci élection présidentielle 2024 waaye nag ay élection Sall du caaxaan de il faut nga am bu dëgër a dëgër mën a gis nga mën a ay élection présidentielle journal bi nee na Mamadou Lamine Diallo docteur Abdourahmane Diouf Mary Teuw Niane Aminata Touré Arona Coumba Ndoffène Diouf Bougane Gueye Dany Malick Gakou Khalifa Ababacar Sall mën na la gis nga ñii ñu bari si ñoom jamono ji amuñuy appareil politique te nag mën na gis nga pour nga gagné élection présidentielle il faut nga am appareil waaye ne moo dina indi activité animation politique yoo xam ne suba ngoon guddeeg bëccëg bu génnee mboboor mi topp ko journal bi nag nee na Ousmane Sonko lu mu def lu mu def partisan mi jël ko farandoom yi daal di koy yokk amplifier ko defal ko ci communication boo xamante ni maara day taale mën na la lu mu def gars yi toppandoo ko yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar yi nga xam ne ñoo ngi koy jàpp taskatu xabaar yi loolee nag kuréel gii di kap ñoom naqarlu nañ ko ba maara day taale jamono ji ñoo ngi sàkk ñu daal di libérer journaliste Pape Ndiaye ba pare nag mboolem topp yi nga xam ne ñoo ngi koy topp ak Babacar Touré ñu daal di koy dakala journal bi di Sud Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum liberté de presse mën la Sénégal deltu na ci lool ki nga xam ne nag mooy njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji ma ngi ërtal gouvernement bi ci jëm ci application intégrale code de la presse yéene kaay gi di Libération ak Rewmi Quotidien di Direct xëy di ko rendre hommage journal bi nee na kilifa la na xeex nag lépp ne jëm na de la jamono ji moom lañ ko jox moom lañ ko tuddee Mame Less Camara journal bi nee na nag monument la woon exemple la woon modèle la woon ci lu jëm ci wàllum tasum xabaar direct news nee na jamono ji nga xam ne mën na la presse bi pëccoxoo na yëngu na jamono joojee la Mame Less Camara daal di dëddoo adduna journal bi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall dina amal waxtaan ay négociation ay concertation ak ñi nga xam ne ñooy secteur privé bu Sénégal ngir nag ñu yokk li nga xam ne mooy salaire u yi yéene kaay gi di sunu lamb xëy